asalaamaaleykum mbokki réew mi asalaamaaleykum mbokki àddina mbokk yi nag ñoo ngi fii ci Baqiya bi nga xamante ni moom lañ doon woo jaami yàlla yi pour ñu ñëw def fi liggéey boobu nga xamante ni Serigne Babacar Sy Mouhamadulil Mansour xalif général des Tidiane moo ci joxoon ndigal rakkam ju tedd jooju Seydi El Hadji Malick Sy ibnu Seydi El Hadji Abdoul Aziz jox ci rakkam ju tedd jooju nga xamante ni moom la ñu dénk daara ji dénk ko zawiya bi waaye dénk ko fii nga xamante ni mooy Baqiya waaye mbokk yi ngeen gis taalibe Seydi El Hadji Malick yi jullit yàlla yi tabaarakallaahu ni ñu ñëwee en en ñoom ñëpp ñu ñëw ngir liggéey bi depuis six heures du matin ba tey taalibi Seydi Hadji Malick yi ak jullit yàlla yi ñoo ngi fii nga xamante ni mooy Bakhya a ko liggéey liggéey bu am solo muy premier image yi nga xamante ni moom lañ leen di jox incha allahu rabi ci kanam tuuti di ñeen ñëw wan leen yeneen image yi nga xamante ni moo am fii nga ni mooy fii ci Baqiya waaye bokk leen wax ni leen taalibe Mam Maodo yi taalibe Serigne Bamba yi taalibe Maam Limaamul ay jullit yëpp ñëw nañ tey ngir xam ni fii ñëpp ko bokk damay wax ni fii bërëb la boo xamante ni ku fi sa mbokk nekkul sa maama ngi fi wala sa ndijaay nekk fi wala sa tànta wala sa mbokk ndax fii bërëb la boo xamante ni am na goor gu tedd goo xamante ni moo fi waxoon wax ni fii góor gu tedd dina fi rënk ay ngënk ba mu fees dell muy góor gi Samba Tukulóor ka booba kan la doon jund Cheikh mooy borom borom parasol moom la doon junj tabaarakallaahu fii nag nga xamante ni moom la ñu wax ay ngënk yu mag ay taalibi Sidi Hadj Malick yu mag ay muqaddami Sidi Hadj Malick njaboot Sidi Hadj Malick sax am na ci ñoo xam ñu ngi fi tëdd mën naa ci lim ku mel ni Serigne Alioune Gueye mu ngi fi tëdd Serigne Alioune Niang mu ngi fi tëdd ak kan ki nga xamante ni tabaarakallaahu mooy baay baay maam maam Moussa Niang mu ngi fii tëdd Serigne Seybatu faal mu ngi fii tëdd mag ñu mag ñu baax ñëpp maam Mbër Kebe mu ngi fii tëdd tabaarakallaahu ñëpp ngi fii tëdd maam musa Allé Baye mu ngi fii tëdd Baye Mbay Donde mu ngi fii tëdd mag ñu baax ñu daan ànd ak sidaaj maar yëpp ñu ngi fii ñu ñu tëdd fii ci sëg yi waaye bokk yi ngeen gis ñi nga xamante ni tabaarakallaahu ñooy taalibi maam Maodo yi gis ñi nga xam ñooy taalibi Serigne Bamba yi gis ñi nga xamante ni ñooy taalibi maam Limaamu Laay julliti yàlla yëpp ànd ñëw fii ngir woote bi nga xam si suñu Babacar Si Mouhamadou Mansour moom la woote kon mbokk yi ñu ngi wax képp ku fi buddi ak ñax yal na la yàlla defal jàmm yal na la yàlla defal xéewal yal na yàlla soppi say mbir def ko mu baax ci barke yonent bi waaye mbokk yi daal di wax premier image yaa ngi noonu moom lañ leen di di wax ni denc bu dul ràpp du réer ku ko def fii incha allah rabbu ëllëg yi di ko fayee ndax fii mam Maodo daf fee ñaan ñaan gu rëy fii Seydi Aboubacar si def fii ñaan ñaan gu rëy fii Seydi Hadj Mansour Bal xaw mi def fee ñaan ñaan gu rëy Seydi Hadj Abdoul Aziz ñaan fi ñaan gu rëy kon mbokk yi nag di bëgg képp koo xamante ni tabaarakallaahu dégg nga mbir mi te nekk ci am boo mënee ñëw nga ñëw waaye may def beneen annonce ni fii am na lu ñu fiy tabax fii ci biir képp ku mën a am ciment nanga nu ko indil ku mën a am fer nanga nu ko indil ku mën a am béton nanga nu ko indil lépp loo xamante ni dafa jëm ci wàllu tabax ku ko mën a participer fii ci Xalxuus nga ñëw ci liggéey bii nga xamante ni sëñ Babacar Si Mouhamadou Mansour moo ko moo ko digal sant ko rakkam ju tedd jooju sëriñ Babacar Si Abdoul loo am ci lu jëm ci wàllu tabax ñu ngi lay ñaan nga yónnee nu ko ñu def ko ci liggéey Sidaañ Malick bi loolu moo doon premier image yi nga xamante ni moom lañ leen doon indil fii ci bàq yaa bu si Seydi Hadj Malick yeneen interview yëpp nañ leen ko defal wan lañ ko en direct mbokk yi di wax ni bul fàttee abonné rek ci compte bi nga xamante ni moo lay wan li nga bëgg fii ci Tivaouane yow da nga sama xarit nga yow da nga ne li may def fii ci Tivaouane moo la neex ba tax man rek ngay suivre waaye nag waxuma ngay suivre kese am na benn s'abonner bu ñu bind s'abonner en blanc xaw ma en loolo loolu rek ngay bës bu cross de notification bi génnee nga bës ko bu ko defee lu ma defati nga gis ko ci barke Seydil Hadj Malick ci barke yonent bi sallallahu wa sallam yàlla faj aajo yi saafara jàngoro ci barke yonent bi alhaaji Malick Diop ak Mame Ndokh TV jërë ngeen jëf jërë ngeen mi ngi loolu lañ leen doon wan wan naa leen ñax yi ni mu meloon fii ci sëg yi gis ngeen taalibi alaaji Malick ni mu def te boobu 11 heures mbokk yi mi ngi noonu dama leen doon wax ni leen fii du taalibe alaaji maalik yi kese ñoo ko bay waaye taalibe alaaji maalik yi taalibe sëriñ tuubaa yi baay ñas yi ñëpp kuy jullit ci àddina tey ñëw nga fi waaye gis ngeen ba gis fi koo xamante ni sunu mbokkum chrétien la ñëw fi mu ngi nii ñu débuté ko fii fees dell ak ñax bu ñu leen waxoon sànq ni leen fii dafa dafa feesoon dell ñax du ngeen ko gëm waaye ngeen mbokk yi taalibe alaaji maalik yi def ni ko jullit ci yàlla yi def suñu mbokk jigéen ñaa ñoo ni ko bay fi mu toll nii ci kanam tuuti boo fi ñëwee di nga fi mën a xalangu alxaaji Mbeg Diop ak Mame Ndokh TV loolu laa leen doon détermination moom la taalibe alaaji Maalik gi ñëwee tey mbokk yi mi ngi noonu loolu laa leen doon wax loolu laay tëjee sama xol bi sedd na mbokk yi fii dañ deux semaines waaye taalibe alaaji Maalik gi commencé nañu léegi bu ñu ñewee six heures du matin balaa onze heures ñu béy jug fi barke alxuraanul karim mbokk yi gis ngeen lii laa leen doon waxati waa kër maam alaaji Maalik yaa ngi noonu waa kër m borom Touba yaa ngi noonu waa kër maam Xaadimu Rasuul yaa ngi taalibe yëpp ñëw nañu waaye bàyyi nañ ko bala moo jeex mbokk yi loolu laa leen doon wan alxaaji meeg jub ak maam ndox ci bi jërë ngeen jëf